يخمون ما غير حسن السلام عليكم ورحمة الله سما صب يا سما عم دجام يب ما لين سيارة بحد الجسن وقت واي دين جيب قلنا نخ وهذا جي على مصانيون سب سودا ما لين دبجل دنا هذا سما كارير بام جيخ تكيم دكتي دجلنا نخاري waye jam ak pexem yalla ak dogalam maa ngi leen di siyaare baax di jégul dama ne woon sax jërul ma koy wax kenn waaye nag ndagam daa àgg fenn fi moom naa leen ko wax rek ba lu ci waay dégg xam ni nii la demee dëgg yàlla maa ngi jégul ñëpp bi ma yëkkatee moo du yaay jeebi foofu benn ngénte ma demoon la démb garab googu garab gi ma toog ne gis ngeen ko garab ga naat la wax dëgg yàlla bu sedd guy falaa ko doon yëkkatee waye borom keur ga da dem ci sàndarma bi lindi bobu da ne ko euh, garab ga dafa rous dafa rous dal manam garab ga dafa rous ba jeex tak xamna sama noonu fa jaar rek ndax man wax dëgg yàlla euh, euh, jang jang ma sa yàggut wax deug yalla bay rousalu garab waye nak nit mom fepp fo doxé rek am nga ay non waaw ndax amna na mo deg xuma dégg lolu njaay lo, mu naan mbay duñ la may nga jang modou yaay jee bi mom rek man na faa jaar felat garab ga man nako felat ba pare ne man mi la waye nak yalla suba daal la wara dem gendarmerie bindi bobu leral leen lepp ma nga djeglu ñepp nak nyep, nga djeglu ñepp dere ngeen def wa rahmatullah sama sop ak sama am du jam yep ma len siara bax di leen sen waccu ay di len djeggulu nak ndax wax deug yalla ma sañon chaque jour dama len di begal dana def sama carrière bam jeex ta kenn du ci deggulu la nakari waye jam ak pexem yalla ak dogalam ma ngi len di siara bax di jéggalu dama non sa dirul jërul wax kenn waye nak ndagam da ag fenn fi mom naa leen ko wax rek ba lu ci waay dégg xam ne nii la demee dëgg yàlla maa ngi jégalu ñëpp bi ma yëkkatee Modou yaay jeebi foofu benn ngénte ma demon la dembu garab gogu garab gi ma toog ne gis ngeen ko garab ga naat la wax dëgg yàlla bu sedd guy falaa ko doon yëkkatee waaye borom kër ga da dem ci ma bi lindi bawu da ne ko ah, garab ga dafa ruus dafa ruus dal anam garab ga dafa farus ba jeex tak xamna naa sama noon fa jaar rek ndax man wax dëgg yàlla eh, eh, Jang jang ma sa yàggut wax deug yalla bay yoru garab waaye nag nit mom fepp fo doxé rek am nga ay non waaw ndax am na booy bu ma dégg lo lo la xamuma lo mo nan mbay dun la may nga jang modou yaay bi mom rek man na faa jaar felat garab ga man nako felat, ba paré né man mi la waaye nak yalla suba da la war dem gendarmerie bindi bobu leral leen lepp ma nga jéggulu ñepp nak maa ngi jéggulu ñëpp jërë ngeen